D'autres manières, je suis prêt Maintenant, nous sommes tous prêts parrainons nañu personnellement chacun d'entre nous pour mener ce combat waaye parrainons nañu collectivement pour mener ce combat Nous yakaron tous ni ay pexe pour mën téré ñu mën dem ci élection bi ma rassuré len ni ñun nañu parrainage gannaaw suñ ko tegee ci seen effort yéen ñëpp kenn ëppale wu paree fii matal nañ ko sëkk sëkk sëkk sëkk caution déposé nañ ko ci biir semaine ba ba jot nañ suñu attestation Macky Sall laa bëgg a wax Macky Sall na xam ni bañ bëgg dina sëgg la ca des nag la ca des nag mi nga dess ci ñun legi saw wax nako, ko keneen ak keneen wax nako gay ba doolo ken duko acc ci njoowaan ndax ni ko bëgg acc mu jafé torop lool nak moñu dal Sénégal boko bëggé acc nak nag faaw nga xamni il faut nga xex ak mom Macky Sall il faut ñu xex ak mom pendant 6 ans

ay nit def nañ 100000 fois limuy limuy li Karim wad wala limuy muy Khalifa sal te ñi ngi ci wetam mu bay la ñuy dox kon waratuñoo nangu di setan Macky Sall muy def lu ko neex waratuñoo nangu Macky Sall muy tan kan la wara a demal élection ak kan la dul wara demal élection motax ba ci candidature ñi ma muy candidature Karim wad PDS muy candidature Khalifa Sall askan wi yep mo wara a taxaw parce que li def c'est illégal modifier constitution modifier code électoral pour gagner un utile scrutin élection bala muy neex moy dañu bay ñi wara mëna présenter wu présenté présenter wu ku nekk présenter programme ak discours am askan wi tànn ki ko doy Abdou Diouf musul éliminer candidat te Ablaye da ko gënon sonnal musu ko téré mu présenté wu Ablaye Wade musul éliminer candidat 2007 ñepp xam nañ ni Menasam bi gënon graw Idrissa Seck la te da ko bay mu présenté wu lan moy ndey tey ñun ñëpp sénégalais ñu tok di sétane Macky Sall mu ne fuññ fu ñaaral di japp nit ñi di tejj di japp nit lan motax kon dafa jot lima leen di wax ni wajal leen xex bi Macky Sall minorité sociologique la yor Sénégal sondage yi mu fay moom ñu defal ko ko yépp wane na ni mënul am plus de 34 pour cent minorité sociologique la am Sénégal yaakaaru lu dul ci foqati ak jaay doole waaye soo yoree minorité bu ñu la seetaanee ba nga jaay doole ci ñun la te bis buñ ko defee ba Macky Sall amaat fi ñaareelu mandat bis buñ ko seetaanee ba mu am fi ñaari mandat ponkalum jëmm dina fi jooy bëkkat mbir kàmb te du am fu mu ko waxee